ci journée bi nga xamante ni tey mooy clôture clôture euh, bon déjà di ko rafetlu initiative bi nga xam ni le président de la république am na ko euh, muy lu am solo déjà boo xoolee concept jubbanti jubbanti lu jubul lañ koy def lu desee jub lañ koy def alors ñu war jubbanti lan suñu justice xam nga justice nag suñ koy wax euh, d'abord Euh, végér man ci déedéet législateur bi suy tënk loi mais ci tur askan bi la koy def te askan bi ñoo ko jox sañ-sañ boobu waaye bu ñu tënkee loi bi ba mu jàll itam euh, suñu demee ba koy àtte ba koy doxal itam ci tur askan bi leen koy doxalee kon askan bi dafay mel ni moo nekk au cœur de cela kon lii initiative bu am solo la ci ñu joyantiwaat ko joyanti ko parce que boo xoolee suñu justice foncièrement Euh, dafa mel ni euh, li ci ëpp solo dañ ñu ko dañ ñu ko imposé doonul lu jóge ci suñu euh, li ñuy wax le substrat sociale maanaam ci suñuy valeur adossé wuñ ko ci alors lu mel noonu nag su amee véritablement ñoo ngi ci am mbégte di saluer initiative bi di ñaan ni xëy na travaux yi nga xam ne nekkoon na en commission tey jii euh, ñoo ngi koy mottali euh, lu am njëriñ dana fi génn loo xam ne askanu Sénégal dana ci gis ndax fi mu ne lu bari mën na sooxee ñu mën ko joyante mais justice bis bu sooxee rek jafe-jafe dana am te gis dañ li fi am dernièrement ci réew mi kon lii lu am solo la ñoo ngi yaakaar ni résolution yu am solo dana fi génne ay euh, xalaat yu am solo dana fi génne loo xam ne njëriñal askan rek lay doon au moins pour apaiser. te euh, dalal réew mi waaye nag surtout ñu adossé ko ci suñuy valeur dana ci am solo parce que da gis en tout cas ku mel ni man personnellement danaa gis euh, lenn nag ci suñu corpus euh, ci ci wàllu yoon loo xam ne damay jàpp ni warul woon nekk sax ci sumu yoon waru ci woon nekk bu fekkonte ni sénégalais ñoo ko waxtaane waaye tey ji nag alhamdulilah jubbanti dikk na ngir jubbantiwaat. li jubul woon di dëngoon donc ñoo ngi seen bëgg. loo xamante ni mi ngi ci code de la famille. opposition bi yéen leen xam-xam ne ay nit diine ngeen. muy wàllum âge mariage. jigéen ak góor. ci euh, société sénégalaise. ñu fixé jigéen bi tam. te bu ñu xoolee convention internationale bi. Hmm. Euh, bi ci 18 ans lañ ko hmm. ñoom ñu boole ko ci seen i proposition pour ñu xoolaat ko par rapport ak contexte bi nga xamante ni moom la euh, diine bi. voilà xam nga yaa ngi tudd convention yi déjà loolu rek aspect bu am solo la. Euh, boo xam ni war nañ ko waxtaanee waat askanu Sénégal aussi xam loolu mooy lan suñu constitution ñu koy wax ndeyu charte réew mi boo xoolee baat biñ ci njëkk a bind mooy le peuple sénégalais souverain. maanaam askan la ñu doon xaar maanaam luñ ci njortoon weesu na donc euh, léegi nag ci kanam tuuti ba la néegandikoo di ngeen dégg présentation restitution wu commission yi sous commission yi ak rapport bi euh, léegi buñ ci jógee euh, ña nga xam ne ñoo jiite en tout cas comité scientifique bi nga xam ne ci laa bokk ak ñeneen euh, danañu xaatim benn rapport général rapport boobu war nañ ko pare avant <clears throat> le 17 juin et que danañ ko jébbal après président de la république danañ dem jébbal ko ko ci loolu dana génne benn feuille de route bi nga xam ne en tout ci feuille de route boobu euh, dana am étape bi nga xam ne moo war a jëmmal coppite yi nga xam ne dana ko indi et que loolu dana waroo ak li nga xam ne moom lañ fi doon gis parce que déjà gis ngeen ko daanaka toog nañu diirub semaine fii di xalaat euh, di càmbar di xayma euh, et que loolu tey buñ ci paree rek dañuy am benn feuille de route ak benn calendrier bi nga xam ne en tout cas ci la ñu war a mandargal coppite yu war a jëla jërëjëf. yi ñu ngi lay euh, pour permettre. gën a am solo. mooy ñu appliqué ko appliqué recommandation même bu tuutee ñaar wala ñett nga xam ne dootuñu amati li nga xam ne mooy Joas man mi d'accord na président de la république toog euh, fii nga xam ne moom la ñuy wax conseil supérieur de la magistrature am na ñoo xam ne d'accord nañ man sama gis-gis bu ñu naan ay république des juges dama leen naan wax leen ma ci àdduna bi fan la république des juges am. jikko président yi jikko ñëpp ñoo ko daan <laughs> léegi loolu am na solo procureur du procureur léegi bi wax ne dañ ko war parce que parfois aussi loolu bokk na ci lii gàllankoor peut-être ñi nga xam ne dañu am yu ak justice. kooku ci d'accord sax pour que procureur ñu bàyyi ko mu mel comme juge am pouvoir d'appréciation muy agir selon sa conscience ak compétence am kooku moom presque ñëpp d' nañ si loolu moom yaakaar naa ne ngir moomu yaakaar naa ne dina dañ sama gis-gis boo gisee doxalin yu bees yi sax te waaguñu li nga xam ne mooy kii euh, boo gisee mu ngi mel ni luy changé waaw ci ci ci doxalin yi ñuy def nii rek teg sax. proposition yi génnagul mu ngi changé parce que loolu tam. muy muy muy longue détention yi parce que gis nañ ne ñu mujjee arrêté même pas deux semaines euh, jugé nañ leen ba ñu pour war a purger yi war a am na ñoo xam ne dañuy toog ba at ci yàggu jël nañ leen nañ leen mën nañu bu ñu def def appel donc euh, yi déjà mu ngi commencé feeñ. te te yi génnagul. yaakaar naa ne gis nañ ci nguur gi euh, si tu ay motivation pour changer gis nañ aussi ci askan bi ak ñi nga xam ne ñu ngi fi ay motivation pour mu changer te man am naa yaakaar ne euh, ay changement dina am changement dina am changement dina am ba nga xam ne dinañu jubalee ñi nga xam ne ñooy euh, sénégalais peuple sénégalais ak sa justice je pense que dina am waaw chef d'état laa wax dama président buñ ko buñ ci benn pression parce que sama gis-gis tënkat laa nag sama gis-gis magistrat yi c'est un corps conservateur pour nous changer c'est difficile boo jëlee tamit université yi fac de droit généralement c'est des conservateurs <laughs> ñi nga xam ne ñooy changer généralement sociologue yi la wala philosophe yi wala sunu maas <laughs> gi seen la voilà et puis. am na ay corps yoo xam ni tam c'est des corps conservateurs muy administrateur civil yi ñooñu bu fekkee da nga bëgg si un changement systémique bu leen laaj de bon am voilà léegi da laaj mooy bon des des gens un peu plus marginaux yi un peu jël distance di di ci société bi di di xalaat société bi ak ni muy doxalee ak ni muy demee société bi dafa changé de. <laughs> léegi tey euh, ñun euh, espace public. soleil moo fi amal wala rajo may déglu adduna bi euh, boo gisee élection yi nga analyser bu baax ñu gën a branché ci réseau sociaux yi ñoo jël nguur gi ah, ah oui bi dafa changé yooyu yëpp dañ koy jël changement yooyu day impacté ci à tous les niveaux même ci ak lépp donc mais li am solo daal mooy waxtaan bi ne am fii waxtaan bu yaatu la waxtaan bu baax la ci bokk bari diversifié. vraiment assises yi macha allah. fi ñuy jeexalee opposition euh, la ñu euh, bi daal lenn lañ opposition euh, kii opposition bu bees bi nga bëgg ma wax leen lan ñoom ah man opposition. de dana dem ci ay élection de perte ay dana dem ci ay élection de perte ay élection li nga war a jëkk def mooy nga seetaat sa bopp seetaat sa bopp seetaat sa doxalin parce que waruloo di yar ay saagakat waruloo di encouragé ay saaga saagakat ak ñoo tamit xam ni tooñ ak wax ju ñaaw am na yu bëri yu dégg fii te justice bi sax réagir wu euh, ñoo nga ñëw ni diw dañ ko war a rey kenn waxu la dara loolu moo doy na waar lool loolu nag yooyu yooyu moo war a dak nga xam ne ku wax du ñu seet sa parti du ñu seet sa waaso du ñu seet dara dañuy xool li nga xam ne yoon moom la tëri ak yoon moom la wax ñu def ko yaakaar naa ne dinañ dem foofu parce que sénégalais yi laaj te sénégalais yi léegi dañ ils sont très exigeants waaw sénégalais ils sont très exigeants seen attente yi c'est très bien.